gis ngeen fa ngeen di bëgg dem ba tax ngeen di jël gal gi di di di jël di di di ci dé ñooñu amul lenn luñ ñu ëppalé ci kom kom ëppalé wuñ ñu or ëppalé wuñ ñu fer ëppalé wuñ ñu phosphate ëppalé wuñ ñu zircon ëppalé wuñ ñu euh, euh, jën ak geej ëppalé wuñ ñu pétrole ëppalé wuñ ñu gaz ñoo leen ko ëppalé fop ëppalé wuñ ñu suuf su nangu ba nga xamné lo fa sanni mu sax xam nga luñ ñu ëppalé am ful la ci bëgg seen réew ñom bañ ci tollé dañoo takk seen digg ne duñu nangu kenn toog ci kaw askan wi yëpp diggu ndaandaat moom ak njabootam ak ay ñoñam ñun ñuy souffrir. looloo andi woon révolution française foo fu baax ci àdduna rek dafa fekk ja am na jamono joo xam ne waa askan wépp dañoo takk seen digg ne lii duñ ko nangu barki démb Soudan def nañ ko Algérie def nañ ko euh, euh, Tunisie def nañ ko Égypte def nañ ko gis ngeen fo foo fu ne ci àdduna nit ñaa ngi jël seen responsabilité Liban def nañ ko lan moo war a tax ñun senegal ñu jàpp ni war nañoo mën a seetaan rek ay homme politique yoo xam ne booleen leen xayma woon ñoom ñëpp matuñu pour cent de la population matuñu sax 0,05 pour cent de la population ñu toog suñu kaw jël alalu réew mi jaay ko jaay suñu géej ba tey géej gi mënatoo fi am jën jaay suñuy suuf jaay suñu pétrole. jaay suñu gaz jaay suñu zircon jaay suñu feer ñun ñu nangu loolu wala ñu jàmmaarloog ñu xeex ak ñoom jëlee leen fi defar suñu réew ñu ne nañu dem jël suñuy gaal di dem Europe kooku mënuñu cee ànd ak yéen ay frère lañu ñenn ñi seen mag lañu ñenn ñi maase nañu ñenn ñi yéen ñu mag comme may ngeen ñu nopp wóolu ngeen ñu fu ma dugg ci dëkk bi ñu ne ndaw ñi sonk lañu àndal bu an ay nit àndeek yow nag di sa njaboot. da ngay jàkkaar ñoom xool leen ci biir bët ngeen waxante dëgg échec am na ci nguur gi échec am na ci ñi ŋànk nguur gi waaye warul tax ñu daw réew mi parce que ñun senegal rek lañu am te yàllaa ñu ko tànnal yàlla bu ko sooboon man mi damay judd nekk allemand Abbas Fall mais judd nekk japone keneen keneen judd nekk américain waaye yàllaa ñu tànnal fii dañ ci war am fierté te xam ni suñu responsabilité fii la keroog bu ñuy jàkkaarloog yàlla. suñuy laaj lan ngeen defoon ak seen environnement du ñu laan lan ngeen def Europe de réew mi ma leen tànnaloon yéen Sénégal lan ngeen def pour réew moom mu baax loolu la ñu yàlla di laaj kon nañu toog ci réew mi en attendant ñuy xeex ba jëlee fi lu bon li fi ne système bu bon bi fi ne nañu toog ci réew mi liggéey réew mi liggéey réew mi nag du rek maa ngi xaal lu ma nguur gi di jox soo gisee ren ñu lancé modèle bu tudd vacances agricole patriotiques ndaw ñu bëri uyuñu si dugg ci àll bi ndaw ñoo xam ne ñu ci bari ci ñoom mosuñu woon bay dugg ci àll bi dem ut tool di bay te gis nañ ci njëriñ goo xam ne man bi ma duggee ci àll bi di visiter tool yi ñu bëri dañ ma ne euh, bés ni ki tey lañu ñu de ñun dañuy yor suñuy tool bopp di bay parce que lii xamuñu ko woon xamuñu njëriñ ci ci ne kon gëm sa bopp balaa la dara di am balaa état di la defal wala euh, euh, waajur di la defal nga jóg dem defal sa bopp dem essayer. su dee Dakar nga juddoo yoroo fi mosoo xam feneen génnal nga ne xaaral ma dem xool Ziguinchor wala Mbour wala feneen peut-être su ma demee foofu dugg ci àll bi war naa mun a def dara réew moo xam ne 42 pour cent de la population a moins de 15 ans 62 pour cent de population a moins de 25 ans loolu daf ñu waroon jox li ñuy wax dividende démographique mooy ndaw mooy tabax réew ndax réew kattan a koy tabax kattan googu ñu ñu pour koo yóbbu jox ko tayle ko européens yi ñoom ñu koy jëriñoo pour defar seen réew. ñun ñu sàggane suñu réew bu ñu ko nangu bu ñu ko Macky Sall jaral bu ñu ko gouvernement am jaral nañu toog ci réew mi xeex defar réew mi te xeex boobu ñaari fànn la benn lay yàq réew mi nañu takk suñu ndigg xeex ak loolu jëlee ko fi ñaar mooy kenn ki ne ci ñun bu mu xaar lenn ci kenn 500000 wala 600000 wala 1 million bu ngay def pour jël gaal dem boo ko jëloon ñu ne nawet jot na nga dem jënd sa jiw jënd sa semence dugg ci àll bi ñu abal la suuf nga bay di ci am loo xam ne boo moytul mun na laa jural leneen ak leneen ak leneen problème bi du rek loo xam ne dafa yem ci euh, napp gi tey Sénégal secteur boo jël moo tax ñiy jël gaal gi di ci fekk ñëpp Sénégal transport bi doxul artisanat bi doxul tourisme bi doxul mbay mi doxul càmm gi doxul transport bi doxul amul benn secteur boo xam ne tey ci biir Sénégal mun nga ne secteur bi mi ngi dox ba ay ndaw war faa mun a jàpp jafandu di fa am seen sutura loolu nag dafa traduire échec général boo xam ne ñu ngi koy tudd mës naa wax nag ci sama benn wax tamit nii euh, loolu maa ngi koy maa ngi koy jagleel occidentaux yi mun leen ñëw jël suñuy ressources naturelles yëpp ba pare jàpp ni population yi duñu topp seen richesse boo ñëwee jël jënu jàmbur nit ñi dinañ topp jën gi dem fi mu nekk boo jëlee seen or wala seen pétrole dinañ topp sol dem fekki fekki la fa loolu moy mo andi problème mo gëna gën aggraver problème immigration clandestine waye man mun ma blâmer occidentaux yi parce que comme disait le général de Gaulle les nations n'ont pas de d'amis elles n'ont que des intérêts tubab gi chinois bi kenen ak keneen dañu am sen fulla bop xam liñu bëgg ñun ño xamul liñu bëgg ñun ño amul suñu fulla bop suma né ñun nak moy ñuy jité Macky Sall ci boppam nga xamné tay intérêt tubab moko gënal intérêt nit ku ñuul kon man je n'ai pas à blâmer les autres kenn ku ne sa intérêt ngay défendre tubaab bi bu amee fulam bàyyi dëkkam def 7000 kilomètres ñëw nangu suñu tefes nangu suñu jën ñun ñoo ñàkk fulla te Macky Sall moo ñu ñàkkuloo message yooyu dañu bëggoon lancer jeunesse bi c'est pas parce que les politiques publiques ont échoué qu'il faut prendre les pirogues loolu duñ ci ànd ak yéen tey duñ ci ànd ak yéen ëllëg seeni xarit lañu seeni mag lañu wóolu ngeen ñu déglu ngeen ñu suñu combat fii la Sénégal nañu des Sénégal xeex xeex bi defar réew mi ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.